mucc ayib ñu xam ngeen ne kon nag moom ci wàccaay màggal gi bugaan ngay dañuy demoon na seeti xalif général kul murid al muntaha moom ci boppam waxtaan nañu si biir ku si nekk jox na sa morom ay kaddu bugaan ngay nag moom kaddu yooyee dafa mel ni daf ko dooleel daf ko yokk laaf moom bugaan ngay daal ni président Macky donte nag saa su ne bu demee sa Touba ñu lajj fa ñu dóor ko dóor foofu noonu ci ay élection waaye terewul nee na la nga xam ne ambition ba mu am sa diwaanu tuubaa xel xalaatul mu koy teggi liggéey bu mu fa man mën a def yi dana ko def ndax ëllëg daf bëgg bu fi jógee mu teg Sénégal ci yoon wu nga xam ne ni yoon ak suqaliku la yoon bu nga xam ne ko xool xam ne li développement la donc nag yenn wax yi Touba doo boroom jaru nga fay def loolu dara nee na loolu du ko yëngal te so feregew ko donc loolu bàyyi ci xel Vox Populi dafa ñëw ci euh, présidence bu ba tey ndax yaakaar naa ne tey loolu mooy coow li président bi sa assemblée nationale El Hadj Ahmed Aïdara Lamine Thiam nag ak nag euh, Barthélémy Diaz fu mu nekk nii ñoo yëngal intercoalition yi Wallu ndax candidature yi nga xam ne daal dinay euh, taxaw Yewwi Wallu face à l'équation de la multiplication des candidatures loolu nag ñu bëri kon seetlu nañ ko euh, Yewwi Wallu fu mu nekk candidat yi bëri na lool si ku jiite assemblée nationale Wade Wade moom Abdoulaye Wade nee na xel xalaatu muy jàppale Barthélémy Diaz ñett la def moom moom candidature. c'est mon waaye Yewwi ak wàllu kan moo lay wax ne présidence bi ñoom ñoom ñoom dañoo minorité de waa benn bokk yaakaar moo leen ëppi député ah, ñoom ñu commencé ñaawoo mm-hmm. xam nga xoolal dafay woon juste Sénégalais yi ni leen ñi jiite woon ak ñi ni ñoo sos euh, Yewwi dafa am benn dynamique bu ñu leen proposé mm-hmm. mais bu mm, ngaba bu njaam ya jàpp yàggee ah, ngaba feeñ mm-hmm. loolu moo leen moo leen weer ñu ngi commencé weexu ndànk ndànk de. waaw waaw waaye ba ci kanam tuuti mi ngi commencé xam naa leen ma commencé jubilé sax man. Mm-hmm. ndax la nga waxoon. ah dama waxoon ni tànk yi ñu jaar diilante ngi ci. te bañu dem ba assemblée nationale. tey. yow gisagoo dara sax. pënd ba bu wëree de si kanam. est ce que est ce que sax tey am na benn analyse politique bu ma ne. est ce que amul sax ci biir yooyu ñuy liggéeyal bennoo. ci biir ma ne ko comment. <laughs> ma sabotage gi dem dem li local. gagné ay maires yu bëri ay villes. dem législative. majorité jiitewu leen lu dul ñaari député kese ñoom opposition bi dafa sa ay liste tout est ok nga xëy jékki-jékki rek dem ba assemblée des ñu indi tiraillement te wóor la wóor la sax ni yaay gagné assemblée ñoom xam nañu mënuñoo gagné assemblée bu amul ay défaillance ci biir benn bokk yaakaar mënuñu gagné ak ak man politique waaw benn grand analyste politique wax na ma ko lu te lu jëfee weddi lay doon bàyyil ba ñu taxawal assemblée ba gouvernement bees bi waa ji ñëwaat. di ci kanam rawu gët. wallaay du ñu ay magum. xamoon nañu ko ay magum waxoon nañu ko ay bu boobaa. ñu leen reeteet parce que dynamique bi ñu propose ba tax ñu fal ñu voté leen ñun ñëpp sénégalais yëpp voté leen ku ko fi trahir dinañu la. reeteet. <laughs> Wade nee na moom Barthélémy Dias. est-ce moom Barthélémy Dias moom Lamine Thiam la àndal Ablaye loolu leer na. maire bu Dakar moom nee na mooy candidat bu yeewi askan wi El Hadj Ahmed Aidara député maire bu Guédiawaye nee na candidat am dafay samp te dara du ko dindi na leer parce que leader la conférence des leaders moom moo fa samp kon nag mu bu wut ku légitime moom moo fa gën a légitime waa Benno Bokk Yaakaar point d'interrogation lañ leen def ndax fàtt nañu fépp li waykat bi wax fàttal ma foofu ñoom fàtt nañu fépp verrouillé la ñu def ñoom fenn verrouillé la ñu def fu mu nekk ñi na fu mu nekk moom ba ba waxuma laa siit waaye dañu seen ah mu nekk nii moom mi ngi mi ngi tawee boor bu ne le vrai journal nee na enfin une assemblée générale de rupture est-ce que rupture am na en lu mu ci manti doon gis nañu ko nee fini la majorité mécanique pour le euh, président loolu benn la exit la euh, l'absentéisme face donc place à à ndax nag ah, am na si député yoo xam ne saa bu ñu ñëwee benn yoon balaa ñu ñëwaat yàllaa xam absent de abonné absent waaw am na député yoo xam ne bu ñu ñëwee pour tàccu la delluwaat wala saa bu ñu ñëwee rek c'est parce que xam nañu ay caméra tey ñëw na parce que ne jàkkaarloo def seen seen seen def seen jeu seen film dem gars yi wane leen loolu moo leen nee nañu nag loolu jéem ci assemblée nationale bi waa grand place dafa ñëw ci yeewi wàllu yeewi contre yeewi fu mu nekk nii Yewwi contre Yewwi jour de vérité El Hadj Ahmed Aïdara déterminé nee na nag gisul kenn ku mën a remplacer Moustapha Niass moom dul moom El Hadj Ahmed Aïdara sa assemblée nationale le député maire bu Guédiawaye nee na informé na conférence des leaders conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi moom wax na leen candidature am kon nag li gënoon jekk mooy ñu porter candidature am Barthélémy Dias nee na moom démb candidat la te candidature waaye Yewwi Askan Wi ñoo ko porté kon moom it nee na loolu dara du ko dindi maire bu Dakar nee na sa candidature est portée par toute la coalition Yewwi Askan Wi kon Yewwi Askan Wi yëngu na ndax nag leader bu sampee ndëndam beneen leader beneen euh, euh, kenn ku ñëw bokk it ne moom it samp na ndëndëm nit ñi ne kon fu mu nekk nii Ousmane Sonko ni lan ban position la jël ñu ne kenn xamagul kenn xamagul Ousmane Sonko ban position la jël yéen kaay bi euh, dikk na ci kenn xamagul moom kan la àndal Sud Quotidien installation de l'Assemblée nationale perchoir e composition du bureau lépp tey la président Macky Sall verru yéene lépp yéenekaay bi foofu la euh, génne source a daal di ko cay euh, feelu ñëw ci choix de leur euh, candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale Benno Yewwi Wallu au bord de l'implosion nee nañ Benno kat li okk waa Yewwi Wallu tamit xuri na ko ndax dafa mel ni am na Touré ñëpp amuñu d'accord ñu si moom mm. wala choix bi nga xam ne moom la ñu def ñu bëri d'accord est-ce que mooy seen candidat ndax moom la yow Amadou Ba nga gis. en tout cas ki président bëgg mooy nekk. ki président bëgg. moo tax dëgg fàtt na fépp. non. coow li yëpp kenn yabuñu yabuñu Macky Sall. ah coow li yabuñu Macky Sall. le vote est secret. le vote est secret waaye terewul yabuñu ko de. le vote est secret. président Macky Sall yow mën naa voté pour Mansour Yacine mii président. du xam ndax yow Mansour nga voté wala kenn nga voté parce que kenn vote bu nekk. am na fu ñu bind woor gi day yóbbu parce que mën nga dugg voté ku la neex et bu ñu waxee nga ne laa voté la ah. ci daal mais nag fu mu nekk nii. Ah, en tout cas dugal nañ leen ñoom ñëpp ci benn bus. ci bus lañ jógee de. ñoom ñëpp est-ce que i portable cinq heures cinq ci yoon bi di ñëw nii. ñu ngi nañ am benn. war nañ agsi sax ah, war nañ agsi assemblée nationale dékk nañu ba pare Macky va poursuivre ses investissements sa euh, Touba donte nag saa su ne bu demee lajj fa waaye tarawul nee na day continuer liggéey ba quatorzième législature une assemblée qui va durer seulement deux ans loolu dafa leer deux ans rek la ndax 2024 dikk na ba noppi élection présidentielle bi rombé da lay wane assemblée nationale dañu koy tas deux ans yi nag ñu gis ne am na si benn opposition bu divisé fu mu nekk nii Barthélémy Dias Ahmed Aïdara Lamine Thiam ñoom nee nañ seen euh, candidat moom seen candidature loolee dafa leer ce que le peuple attend des de ses députés lan la askan wi di xaar ci euh, ñoom yéenekaay bi euh, dikk na si Yewwi Wallu si le quotidien multiplicité donc des candidatures Yewwi Wallu pair pair choix mu ngoog noonu la ko tuddee jeu de mots la ko def kon nag pair choix bi fu mu nekk nii yàppale ne kon coalition intercoalition yeey wala am na te quatre candidats lu mu gàtt gàtt El Hadj Ahmed Aïdara ngi moo ngi nii Abdou Bara mi ngi nii moom moo ngi nii ñeenti doomi pendanaar yi bi yeboo ngeen xam ne ñoom ñoo fay samp seen dënd ci coalition intercoalition yeey wàllu ngir jiite ko l'observateur ñëw ci waxtaan bu nga xam ne sekk na ko ak Serigne Mountakha Mbacké président Macky Sall relation bi dox si diggante ñaari lan la ñu waxtaanee yéenekaay bi dikk na ci yéenekaay bi dikk na ci chaise Pa Moustapha Niass boobee nga xam ne ki ko war a wuutu tey ji la ñu koy xam ak ah, Ahmed Aïdara Barthélémy Dias ah, Lamine Thiam la guerre fratricide ndax nag ñoo bokk seen ak kuréel ñoo bokk seen famille fu mu nekk nii ñoom ñëpp yaakaar naa ne yeewi la ñu tudd ax wallu donc nag fu mu nekk nii ñoom doomu ndey yi wala doomu baay yi ñoom ñooy xeex seen biir ngir kan mooy jiite li askan wi doon xaar si ñoom ndax loolu la lu mu ci manti doon xëccoo baa nga fa l'exclusif la ñuy jeexalee Yacine assemblée nationale pas de coup de théâtre ce lundi pas de coup de théâtre Macky Sall bétonne son bloc loolu leer na fàtt na fépp kenn amul benn information donte ñi gaañu sob ñi comme classe Mamadou nag yi ñoom def nañ seen casting ba pare ñoom defal nañ la castingu assemblée nationale castingu gouvernement bu bees bi tey jii boo ko laajoon kat mooy nekk premier ministre. moo wax la ko waaw météo xam nañ ko de. et eh, de. Mamadou Fofana da lay wax premier ministre man nag am na tegal na ma casting ba pare dinaa xool moom Birane teg nañ seen casting ba pare après dinaa xool ah. bu gouvernement bi génnee dinaa xam ne gars ne noonu la demee bu assemblée nationale demee noonu ki nga ah, dama leen sippil samp mbëri ni ñuy def samp nii yëkkati loolu laay def en direct fii mais lu mu ci mën di doon benn bokk yaakaar tous dem nañu séminaire ñoom ñoo duggandoo ci bis yi ñëwandoo donc war a voté ndoo sa assemblée nationale fu mu nekk séminaire lañ leen yóbbu regroupement ñu ne nag am na ay héros ci majorité bi ñoo xam ne ñooy kàngam yi ñoom xam ne ñoo té ñoo poñe fu mu nekk nii euh, euh, gouvernement bi ñoo xam ne ñooy dooley président Macky Sall kenn ki Abdoulaye Daouda Diallo sa la bopp ma Pape Mademba Bitèye sa la bokk Abdoulaye Seydou Sow sa la bokk Aly Ngouille Ndiaye sa la bokk Karim Sène Mamadou jaw Malick Fall Alimane ñii jàpp nañu kon fu nekk ndaanaa ni président Macky Sall Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr Mariama Sarr nee na ñoom ñooy piège yu parlementaires yi ñoom nag ña nga sa assemblée nationale war na war faa mën a am doole nan la ñuy doxalee yéene kaay bi euh, euh, dikk na ci kon nag Yacine assemblée moom ne ni yéene kaay yi foofu la ñu fële ah, am mu fajaru na bi ko envoyé yi en attendant envoyé ko maam Bés def. boo si di en attendant ñu am image yi. léegi euh, El Hadj daal di doxantu. ci les portes de l' nationale ouvertes à heure sont fermées depuis cinq heures du matin. enfin mhm. ce qu'on dit la salle est déjà remplie comme ni ñu ko donc nag bés bu rëy a ngi commencé ci diggante fii si bopp xibaar yi maire bu Dakar maire bu Guédiawaye ñoo ngi xëccoog euh, sëñ Bara Dolly Mbacké euh, ca Touba ñoom ñëpp ci coalition Yewwi Askan Wi benn candidat ñeel Benno Bokk Yaakaar benn candidat ñeel coalition wàllu euh, kon dynamique gu Yewwi wàllu déjà moom tas na ci suba ba jante ba fenkee la xëy fankaale ko tasam ndax ku nekk si jubbu ci l'Assemblée national jàngalekat yi nga xam ni dañu nekk ci wàllu euh, position stage lañu bëgg mooy amal grève de la faim ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer bi ñu dëgg ma la ñuy exiger mooy gouvernement bi satisfaire seeni ay kàddu yu jàmbat euh, lu mooy loole mooy dugal ci ñoom deux cent dix-huit yi nga xam ni dañu leen a sélectionné woon ñu nekk ci wàllu stage leneen ci wàllu xibaar ndox mi ne muy yokkoo fële ca Lac tiital na bu baax ñu nekk foofee di exploité wàllu hôtel ni ki itam xolam si ak yooyee ndax ndox ma daanaka jéggi na dayoo am nay place itam ci wàllu commerce yoo xam ni ndox ma nangu na ko wàllu sport dinañ ci ànd ak euh, Baye Mante Mboup yéen kaay Mantulaay ci bundooy Mambey Ndiaye tey doo waabale da ngay faram fàcc rek tey doo waabale jaajëf El Hadj Ahmed euh, <laughs> El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ba bee nekk si El Hadj Ahmed Aidara candidature am des koy door ndax gannaaw eh, waaw daa mel ni de fu mu nekk dafa mel ni dugg na ci bopp ñëpp de <laughs> El Hadj Ahmed Aidara gannaaw ba mu sampee ndëndëm jàppale ne kon keneen ku nekk ci coalition Yewwi euh, Yewwi Askan samp na ndëndëm kookee moo di maire bu Dakar Barthélémy Dias démb la ko xamle ci ab déclaration bu mu def xam ne kon nag candidature am bi bo si boppam moom imposé ko waa Yewwi Askan Wi ci boppam ñoo ko porté samp ko ngir mu doon seen candidat sa assemblée nationale ñu teewlay kàddoom moom Barthélémy Dias su ma wu nekk candidat suba incha allah lundi le 12 septembre 2022 ci poste président wu assemblée nationale bu Sénégal. nekk ci coalition ay leader tànn la loolu dañ ci sant yàlla moo tax assemblée nationale boobu ñu bëgg mu nekk assemblée nationale buy mën a garantir lu ñuy wooye séparation des pouvoirs. wante Macky Sall di bëgg a nekk ci dëkk bi di buum ak di buum loolu moom dafa nar a dak Sénégal moo tax ñu ne assemblée nationale boobu day nekk assemblée nationale buy may Macky Sall afia mais buy xeex tamit ba askanu Sénégal tamit am afia Aja El euh, ñeenti candidat pour euh, candidat yi déclaré ci pour coalition intercoalition Yewwi Wàllu ba njàngat nga ciy def ah ma man li may demandé mooy il faut ñu arrêter seen discours ni Macky Sall bëgg yore réew mi ñoom discours boobu la ñu présenté woon. Mhm. ak benn projet. ñu gëm leen ma koy woowee dynamique. ñu gëm leen wóolu leen ci. ñun du ñoom la ñu gëm de ñoom seen personne. li ñu ñu présenté la ñu gëm. cumul de fonction amul xaw ma cumul de mandat noonu ko man di woowee. Mhm. amul ñoom ñëpp. leader yëpp pratiquement Barthé mi doon wax El Hadj Ahmed mi bëgg a nekk président euh, Ousmane Sonko bari na ci ñoom ñoo xam ni ku ci nekk da nga nekk député en même temps nekk maire loolu benn la ñaare bi ci des euh, conférence de leaders daf may fàttali bi Ousmane Sonko woowee Barthélemy Diaz ni ko laaju ñu la sa xalaat exécuter li ñu la wax ndax doo leader ci leader yooyu bi ñu eggee ci composé liste yi kenn nanguwul dem sa département Ahmed Aïdara doo nga demoon département am ci leader yi laa de ñu ñuy woy leader mu ñu nekk ci tetu mouvement wala parti alors leader yooyu ki bokk ci ñoom ni moom candidat la Ahmed Aïdara Barthélémy Diaz nee na leader yi ñoo ma ñoo porté seen choix ci man pour mu xëccoo nekk président assemblée nationale alors li jaadu pour ñu ko Sénégal yi mooy ñii di xëccoo ci yéen amuñu majorité donc mënuñoo gañaas à l' assemblée nationale pourquoi li ñu am yaakaar ni xëy na mën nañu rentré ñaari député ci benn bokk yaakaar wala ay non alignés comme Pape Djibril Fall mi ñu doon saaga ak Thierno Alassane Sall am yaakaar ni mën leen mën nañ leen a rentré moo tax ñu foog ni ñoom mun nañoo falu ci moment bi ñu amee possibilité falu fàtte nañu li ñu présenté woon askan bi fàtte nañu ko xaat te ma tugul juróom-ñetti weer ku nekk nga xëcc jëmale ci sa bopp waaw kuy dingat gestion bu Macky Sall ak fi Sénégal yi toll ni lépp yokkoo flambe prix tey yii kenn ku nekk xaati woon ni mën naa egg assemblée nationale pour taxaw contre carré bépp budget bu ñuy votel benn ministère te ñu jàpp ni liggéeyoo li ñuy xaar ci yow déedéet xanaa kay yaa ngi xool noo jiitee à l' assemblée nationale ndax xam nga lu tax avantage yi. avantage yi yaw la moo wutalee simple député ak président assemblée nationale avantage yi. ndax moo wutale simple député président groupe parlementaire wala nga bokk ci bureau à l' assemblée nationale kon tey suuruñu avantage kon tey suuruñu seen cumul de fonction yu ñu waxoon te dañu ko bindoon ñoom mu bokk ci seen ay charte yi ñu taxawal seen ay coalition euh, lu ñu doon saaga bi ñuy waajal campagne bi dama ni gëwma alliance Yewwi Wallu est-ce que histoire joxuma raison tey tey wóor na leen ni tey député yu PDS duñu votel mukk candidat wu Yewwi tey wóor na leen ni député yu Yewwi ku nekk dafa am fooy jëm du ñu sax woteel waa yeewi yëpp ku nekk di nga am sa choix bopp ci biir vote gi waaw féewala wuñu est-ce que li ñu waxoon Sénégalais yi dëgg la dëgg la du dëgg maintenant tey intérêt tax na te faloo guñu ñoom tax na ñu fàtte ñi leen faloon intérêt tax na ñu changé li ñu présenté woon Sénégalais yi intérêt tax na ñu fàtte tey souffrance bi sénégale yi jànkuwante wante eh, li lay firndeel gàtt xel gi nekk ci ñoom temps ñoom ñi xëccoo ñëpp. kenn amu ci majorité ci biir Yewwi Askan Wi kenn amu ci majorité amul kenn ku ci ëpp doole pire amul kenn ku ci ëpp doole Pastef mi amul candidat ñoom ñoo ñooñu di xëccoo ñëpp qu'est-ce qui se passe alors da nga dañ koy dañu bëgg dañu dañu bëgg def ak ñun pousse oto bu paan oto bi tàkk ñu dem bàyyi ñu fa ñu ngi waaj a yaakaar yaakaaru askan wi ñoom waa Yewwi ku leen ko waxul da nga leen ragal tas nañ ko sax déjà parce que alliance bi moom dakk na dee Lamine Thiam mënoo fexe bi Abdoulaye la du am candidat. yow yi def na ñetti candidat muy ñeenti candidat ci opposition bi benn moom des ci benn candidat waaw benn bi ñu bëgg a folli daañu ko folle ci féewaloo. Mm. daañu ko folle ci sikkim sikkim yu fasto nga foog ni ñii ñuy wuti à l'Assemblée nationale doole gu ñu mën a jàkkaarloog weddi bépp loi bu ñu bëgg a jàllale te méngoowul ak njariñal askan wi. ñu ngi tax suñu yaakaar de te duñu leen bàyyi nag gis nga bu ñu foogee nii daañu leen bàyyi ñuy def lu leen neex ci seen xëccoo gi mel ni ko xiif. juum nañu parce que waxoon naa leen ci ci bu njëkk ba nii leen forcé ngeen ñu jël seeni i booy ñuy saaga ak def lu nekk man histoire jox na ma dëgg alhamdulilah maa ngi leen di xoolaat parce que dynamique boobu dama ko gëm comme tout sénégalais. Mm-hmm. bu ñu demee à l' yóbbu fa lu bokkut ak li ñu présenté woon xoolal wuu warkat bi lañ leen di wax warkat yi. waaw daa ñu leen wax wuu warkat yi. te commencé nañu war askan bi maam. commencé nañu war askan bi alors euh, rupture bi ñu yaakaaroon ko ci assemblée nationale Mamadou Fofana est-ce que dinañ ko am ren ji mais est dinañ ko am loolu mooy.